na ngeen def. sama téléphone bi dee ngi sonné. allo. hey. ma ne ko Ali Baba Naar. doon laajte Fall de Ngoye ngi. waa Pape Diop ci loo nekk. Fall Njaga yaaram kenn du yow de. <laughs> ça va maa ngi nii rek. maa ngi si jàmm. nga ne wala man dew ma ci ay restaurant yi nga xamante ne ay 3000 ngay fay cinq 2500 man dew ma ci yooyu damay sañse ba jekk waaw jaar nii dem almati waaw waaw quinze 75000 laa bëgg ak 40000. bu matee cent mille sax nga paye ko ñu ñu ñu ba muy ñun ah lu ma bëgg yàlla nay jàmm yaa ko wax de <laughs> ci jàmm rek lay dox man ah da nga woo chauffeur bi mu jël si ma amul problème naa ko xaar naa soñte daal toog di la xaar en tout cas waaye man demuma ci ay restaurant 3000 ak 2500 waaw amul benn problème <laughs> ay lan nga wax ah Mbour ok kër gu am piscine am lépp koo jëndal man <laughs> neex na man daal lii tax ma lay gën a yokk di la bëgg nii tamit ma ne ko jóoba jubba kenn du yow de màkka moom day ëpp moom bàyyi ma rek <laughs> bàyyi ma rek ma toog ba si kanam ma soog a dem jëndal ma kër gi rek jëndal ma kër gi rek ma falaay gën naa kontaan ci yow yéen a toog <laughs> gën naa kontaan ci yow laa jërëjëf kontaan naa trop waay Aïcha amul problème comprendre naa li nga wax merci beaucoup waaw ok waaw maman waa doom nday waa kontaan ci yow ñaf Ali baaba ko mën waaw kii moom amul keneen ku mel ne moom garmi yi ñu ngi ci biir garmi yi te man damaa jël garmi parce que bii de waajal ñëw oh. maa la ko wax kii di la wax ay waxu alma ak ay maa la ko wax. ah waaw bul de laa jommi man yii kii maman moom jarul yàggal xam nga nooy def wax ko mu yónnee rek ñu may la ko ndax cat dafa gaaw. may waaw. mu loo ma dégg may. Mhm. teg ko ne xam lu may dal man damaa jub si tëbëg sama tëbëg si laay waajal bu ma kenn yàqal. waaw kii wér na est-ce que. waaw xanaa bi du passé. yow mii damaa yaakaar ne dangaa yor ay rab de wala jinne may mun a dugg la mun naan xaar. na xaar ndànk. amna yenen morom man sama teranga dama ko yore yow tamit xam nga sank da nga ne tabaski bi buy ñew ku ne day déliré ki nak dafa commencer déliré way jank waxuma lool yow taxo dara xam nga ki yaayam peul la leer na ma ci mbokk peul mi la yobbu ñu fas xalé goori ba lu mu leen laaj ñu jox ko ko lu mom na waat hmm day na waat wal dafa am sama benn copain mo wara gisante hmm dañu wara dem benn resto way jank do tok xol dama leen di bayyi xaarama ñam xaarama am luma luma lijjante rek ñewaat fi <laughs> problem nak nag. waaw doom day. ay doom day yaa ngi ci daal. yàgg na daal la la tax seen titi boobu. waaw yow maa la ko wax de sa combinaison baax. waaw doom day jëm yoo. ah tiit laa def. munta ne. kii war nañ ko woon di ko digg ak ay lu la ñu ko. te ñu toog fii dañoo gëj a dañoo gis nga combinaison mu baaxee. marque la sol de. ah ñi rek dañoo mën fas. moom suñu waa kër du ñemee sëriñ ma ne ko raba ko dugg ah, dëkk bi de léegi moom doy na waar moom nit nit xale góor di liggéey rek aka baatalu ci xale kon liggéey raba ba fi de parce <laughs> du xale ya ko fi bàyyi fii teyoo tey xale dugg fi ma waa moom ay na ngeen ma maa wuyoo wulli yee wut waaw yow ma dëkk téléphone ba amul batterie amul pis jële ma tous ba ca dégg ba ah lii doy na waar tamit. fii de xale sax bo leen ko joxee pour ñu koy fowé dañuy bañ. wana gogo lii pour wanaa gongo. ko gogo li nga xamantene borom boutique yi sax bam daan am ki jaay bi ci isi jaay isi. <laughs> eh mën na kenn samsung yi ak ma nga jëg. ne yaaka tuba bi créé bu bes tuba bi nak mu ne nañ lu ne ci aduna ah tubaab bi créé nañ fi bu bu portable bu ñuy xool ci ndox créé nañ nag bu amul bët rek puus ak puus bu ci digg ba nag. yéen a ngi toog waaw. kii damay wër ne. waaw. ah du yow hmm? wër. dama am ma fàtte. lu mel na. ko lu yore rab nii looy wër.

ah bii moo xew léegi fóon. bi ma. <laughs> jógewul fii sax marque la de. ku ko defar. Hmm? <laughs> waa fóon ñoo ko defar. <laughs> lii kay fóon rek ñoo ko man a defar waaw. man daal xam lu ma jaaxal. bii day jël àppee ci kaw àppee ci suuf. kay dina xanaa xam nga stress dina la lay def doom kii defe naa tabaski bi moo yóbbu mémoire am muy déliré. kon fii xanaa kon ci satellite bi la de sa waxu mbay ji di wax naka yow kenn woowu la yow boo jaree rek sa ndaya dem ci sëriñ maa nga dem ci sëriñ jaaxawe woon nañ ma yow mën ngaa jar te ñun duñ jar. far bu dëgër tànk bi téye suñu làmmiñ bi yow ngoro bu dëgër sax amoo ko ba <laughs> yéen yéen comprendre leen téléphone bi marque bu bees la. Ah. fi nii booy wax dangay wax nii rek doo composé sax nga jot ki ngay waxal. <laughs> marque bu bees. nga ma say utal de man. Ah. baax na si yow ndax sa ndoxu cité bi yow. yoo ñàkk ko posé xanaa pour solaire bi. Hmm. solaire nga yii ñoo xam ba mu amee ba tey kenn chargé. da nga yaakaar mi nga nekkee Gambie daa woon seddoo. chéri waaw mën ngaa jóg dem. jugal bëgg a jóg dem sa noir baax na. mënoo hmm, tekkee noonu te tekki mu njugal. di nga bokk kay. dama la soxor nag dama bokk. Yeah, I got a good